tayru sar borom 1 milliard yi han ah, ki mo joxe 1 milliard ci coronavirus bi mi ngi ni tayru sar le jeune milliardaire buñu amone sa juroom senegal jëm kanam ay ca dalu dakar point